ba ci kër Cheikh Amadou Mourtada jaarale ko ci jëmm yooyu sant nañ li tàmbalee ci kër Soxna Fat ja ba ci kër Soxna may Maymunatu Soxra waaye sant euh, suñu doomi bopp di kenn ci ñun muy Serigne Moustapha Mbacke moom sëriñ Mbacke Soxna loo ci taxaw boo xamante ni bii taxaw na ko ci bis bi tey képp ko xam yàlla dogal na nga ñëw ci dëkk dëkk bii te am ab seetlu di xool. da nga gis ne daf lay fàttali bis bi ñu ko tuddee sëñ Mbàkke soxna loo ci mbooloo mu bàyyi ko ci kàddoom ci taxawoom ngir ñëw taxawul ko bis bi nga xamante ni maamam lañ ko tuddee muy Cheikh Amadou Lamine doonoon xaritam waaye taxawul ko bis bi nga xamante ni woy juróom mooy jiite njabootuk Serigne Baara muy Serigne Moustapha ci taxawaay yu rafet yoo xamante ni li ñu ci xam dañ koy xam waaye mënus koo tudd nu mu ci war a taxawee taxawee ne ko noonu. Euh, sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke Falilou taxawaayam rafet na ci taxawaay bu yéeme bépp dongob laxasaay boo xamante bi topp na ko ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Modou Moussa Mbacke Falilou ak sëriñ Galas Mbacke moom sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Galas Kana di suñu mag di suñu xarit euh, àndandoon nañ ko jël lépp loo xamante lu fi indi mbooloo la ci ay bagages ak lu mën a doon. liñ naan ko logistique Serigne Gallas moom Serigne Modou Bousso Dieng moo ko jël ci alali boppam def ko ci yëkkati ay otoom def ca la ca war oto yi nekk fekk ñun ba fii may wax yow ba lépp lu ñuy too ci lañ koy jaar ak ku ñu naan alaaji Mass Diop transporteur dëkk tubaa faw ñu gërëm leen ndax euh, la Serigne Abdoul Ahad Mbacké daan wax naan du ñàkk fayda ak ñàkk bopp mën te weesu di gërëm ko la deful dara ginnaaw nag dañuy wut lu baax te di ko yaakaar ci Serigne tubaa képp koo xamante ni ba ko déggee yëkkati nga la nga am. boole kook sa yéene jëf ca bu ñu tolloo ci war koo seere te di ko jaarale ci kàddug Serigne Moustapha des na ko seere ngir nga dégg ko xam ne yëg nañ sa jëf ngir nga jëf ko ñu wax ko ku ko jëfutoon dégg ko ba bu ëllëgee bu lu mel ni amee mën caa jëf ngir war a mën a dégg waaw góor waaye war a mën a xaar ngërëmal Serigne Touba euh, cant buñ koy def di koy yëkkati di ko teg ci loxo Serigne Abdoul Aziz Fall mi nga xamante ni doomu Serigne Mamadou Moustapha Fall la moom Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di ko ko yóbbante ci Serigne Cheikh Jëmb mu jaar ci sëriñ Cheikh Jëmb tàbbi ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp nag waaye nag rawatina ñëw ci euh, loxo yi sëriñ Falilou Fall moom sëriñ Serigne Modou Aminata Fall ci taxawaay taxawaayam rafet ci bis bi ndax jëmmam ak jëmm sëriñ mu Moustapha Mbar rakkam danoo ànd ñëw ci bis bi donte que dañoo tudde Cheikh Ibrahima. am ngont waaye dañoo ñëwaat ngir jëlaat seen i jëmm ak seen i yéene delloo ko ci bisub Serigne Bara Mbacke Falilou sëriñ Cheikh Ndigal Fall moom Cheikh Fall Bayib Góor fii la toog ma toog fi mu xam la ne li ko fi indi ci dëkk bi mooy bisub maamam Cheikh Ibra waaye li ko indi ci kër gi mooy yitte ak yéene ju mu am ci bokk bokkale ànd ak ñun ànd ak sëriñ Moustapha ci bisub sëriñ Bara kon euh, nee nañ àll matt nawe matt waaye nag boo jógee di taxani te bëgg a taal. bëgg a toggal ndaw ko ndaa bu xiif waa buso buso boo demee ci àll ba boo fa fekkoon mat danga nga mere deful dara la tax ñu leen di tudd dañoo def lu mat a def te def ko fu ñu ko mat a defee waaye nag defal ko ñu ko mat a defal muy Serigne Bara Mbacké Fall waxoon naa ko ci yi jàll dama ne leen Serigne Bara euh, nun wolof danay faral di wax naan matuma seeri ci nit ndax na nga demee ca moom nun ni ñëpp demee ci moom rek lañ demee ci moom ndax ñëpp taalibi Serigne a leen jàppoon kon mat nañ seeri ci moom. amuñu weneen taxawaay ci moom weesu nekk ab taalibeem kon li taalibe war a seere ci sëriñam mor nañu amuñu beneen taxawaay bu ñuy séntu ci moom ba tax ñu jàpp ne waruñoo seere loolee bu boobaa boobee amul lu ñu njariñ bi ñu amal njariñ mooy nekk taalib sëriñ Touba nim ni mu def boppam jàppe ko ñëpp kon moom niñ ko waxee jëmm la woon joo xamante ni moom sëriñ Baara Mbàkke Falilu euh, ab docteur la woon ndax mën nañ ne docteur la woon waaye sëñ Baara maladie la woon ndax docteur mooy faj maladie mooy xool nit ki ba xam liñ ko war a defal mooy bind ordonnance mooy joxe ordonnance ñu yóbbu ko ca pharmacie ngir ñu jënd garab yi sëriñ Baara boo koy xool ab docteur la ba noppi di di tawat ji nag waaye di xool tawat ji ngir saafara ko waaye di fa ñuy jënde lañuy saafara tawat ji waaye nag di kiy joxe la ñuy jënd la ñuy saafaraa tawat ji loolu sëriñ Tuubaa defal na ko sëriñ Baara Mbàkke Falilu nun xam nañ ci dara kon. dañuy sukkandiku ci jëmm jooji di ñaan képp koo xamante ni ki teew nga ci bisam bii ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba Serigne Touba faj sa aajo tey ak ëllëg képp koo xam ne ki teewoo fi te amoon yéene teew fi fépp foo nekk ca ba bis bii ñëw ak fu la mën a fekk sa paju aajo xaj na ci te it rafet nañ ci njort ndax wér nañu ne sëriñ Bara am na ngërëmal Serigne Falilou sëriñ Falilou am na ngërëmal Xaadima Rasul diggante Cheikhul Xaddim ak yonente bi sallallahu alayhi lu euh, luñ ciy dégg la ak lu ñuy war a xool di ci roy kon yëngu yi euh, rëyuta rëy rëy rëy ba romb sëriñ bi lu fi nit def ak lu fi nit yéene fu mu rëy rëy ak foo ko tibbe rek ci sëriñ bi nga ko tibbe delloo ko ci sëriñ bi kon dañuy santaat sëriñ bi nga xamante ni baaxe nañu moom ci ay xéewalam yu mu soxla ci yeneen barab ñu bokk ca ñay jàpp ca ña koy jële ca barab bee di ko yóbbu ca barab bee tey mel na ne yoonu murit moo soxla woon ci diggante ñetti fan ci ndar nu bokk ci ñi war a ñëw ngir ñi sëriñ bi defal tawfeex ñu bokk ci te gëm nañ ni ci leen bokk ndax euh, ñàkk bopp mënta weesu euh, ngay xëy te xam li la tax xëy nekk ci li nga nekk te xam li la ci tax a nekk euh, di séntu lenn lu bokkut ak la taxoon nga nekk ci la tax nga nekk ci rek ngay am te wér nañ na jëmm yi ñu àndal joti ndigal ci sunu kilifa yee bàyyi sunu lépp ndax lim fii nekk lépp lépp lépp am na lu ñu lu ñuy muñ am na luñ dut def am na fuñ demut am na fuñ duggut am na lu ñu wutiwut ngir sàkku ngërëmal Serigne Touba kon wér nañu ne euh, li ñuy sàkku ci ki ñu koy sàkku am na ko kon dañuy sukkandiku ci sunu kàddu gu néew gii te suufe ci ñuñ ko sañ a wax ñu dellu siwaat sunu xel ci li tax a jariñu xam ni ñu koy waxee sant yàlla mën ta weesu nekk ab jullit kon jaamu yàlla mooy sax sant yàlla kon yal yàlla xiir ci jaamu yàlla bu nu ci yàlla xiiree yal nañu ko yàlla nangul waaye buñ ci tënkoo ba noppi sunu ruu yi ci sunu yéene ci sunuy jëf nañ ko delloo Seexul Xaddim ndax moo nuy dimbale tey te moo nuy dimbale ëllëg kon wax ji mu gudd mu gàtt xam naa dañuy jox sëriñ Basiru ñaan mu tëj ko ci li des ci cant yi Euh, di delluwaat di sant sunu wayjur yi fi toog nga xamante ni cir bi nu am ci dëkk bi moo nu boole ak ñoom ñuy sunuy nijaay di aljaw gay di Ahmadou sekk mais nga xamante ni wayjuram El Hadj Mbaye Seck moo nekkaloon Serigne Fallou ci dëkk bi te tey magam El ma Seck sekk yore kàddu googu te def ci lépp lu ci war a def di sant El Hadj Ibrahima géey mais ak mbooloo mi fi toog yëpp euh, Serigne Omar Diallo ngi ni toog. Euh, teewal fi kuréelu ñaale ak yi muy président Ahmed Fall Lamine Gueye ñoom ñëpp ndax ñoom kenn ku ne foo teew ñëpp nga teewal Serigne Abdou Aziz Fall tudd nañ ko euh, Serigne Mortala Gueye mii ni nga ko waxee jàmbaar la joo xamante ni danoo ànd ak moom ngir liggéeyal Serigne Touba waaye daf ñuy soññ ci liggéey bi ci yéeneem ak ci jëfam ci saa sune ngir jëmmi Serigne Touba kon mbooloo mi noo ngi sant ñëpp di sant tamit presse bi di sant press bi. ci fànn yëpp ndax bu dee lu ñu war a xool la wane nañ lépp loo xamante ni lu ñu war a xool ba gis ko ci sëriñ bi la bu dee lu ñu war a bind la bind nañ ko ci sëriñ bi ba ñu ko war a jàng ña ngi koy jàng di ko xool di ca jariñu bu dee lu ñu war a déglu la ña nga ca ca nam ware waaye ci biir dëkk bi ñu nekk nag am na rajo bu fi ne ñu naan ko Alaaji Golbert Diagne taxawaayam tey lañ fi am juróom-ñeenti fan amul bis bu mu xëyul suba ba ngoon te du ànd ak ñun di jël ay root ay kaddu di ko jot li askan wi nga xamante ni war nañ koo dégg ngir taxaw bu ñu war a taxaw ci bis bi te nii nit ñu génne te sëriñ bi rek tax ñu génn wane na ko ci nu ci dugalee loxoom kon ñoo ngi sant yàlla ku ñu tudd ak ku ñu tuddul li ci sunu xol ak li ci sunu yéene e, ëpp nu tudd doomu aadama te sëriñ bi li muy defar ajuwut ci tudd doomu aadama e, pajuk aajo yi liggéeyal sëriñ Tuubaa weesu na dem ca di sonn ak di ci jëf. nit dana fi nekk sonn di jëf def lépp lu mu war a def am ngërëmal Serigne tubaa ba waxuma dëkk bii mu ne waaye bu fi jógee bu ñibbee foo gën a sori ci réew mi wala ci réew Touba am nit mën na koo teg ba ajoom faju ca ndimbal ndimbalal Serigne Touba foofa la ne kon yàlla ñu ko yàlla defal gannaaw dégg ak topp te yàlla seeyal ñu ci lislaam te saxal ñu ci ak taalibe ñu seey ci loxo Cheikhul Khadim te luñ ci seey yan ñu ko Serigne Touba nangul te lum ñu ci nangul yan nañ ko dellaat Cheikhul Khadim na ko ni ñu ko waxee woon sànq ni ko Cheikh Abdoulaye daan waxee rek sant sëriñ bi bëgg sëriñ bi jàpp sëriñ bi ba lu ñu am di ko delloo ci sëriñ bi te looy delloo ci sëriñ bi loolee di bi kon yal nañu ci yàlla dimbaleel bopp barke Cheikhul kenn ku nekk ci ñoom li nga wax doy na sëkk jotal nañ rafetal nañ te li ñu rafetal daa fekkoon mu rafet ndax jëf ju rafet li ko day doon loo xam ne day soññee euh, sëriñ bi nag kàddu gi mënu ci jox. kàdduk sagal la kàdduk cëral la ngir xëy na fa ñu jóge ak ñanu yabal waaye du ci sunu jëf du ci sunu jëmm du ci sunu xam-xam waaye ak mbaaxam moo mel noonu sëriñ bi mu ngi seereel ñépp ne su toogoon tey di lim ñi mu sant mën na koo def ay weer te du jeex ndax bisub bi ñu tudde woon Cheikh Mouhamadul Amine ni ci nit ñi jàppee ni ci senegal jàppee ni ci jullit yi jàppee ni ci yoonu murit jàppe ni ci mbokk yi jàppe yaatu na yaatu goo xam ne seen jëf da doon jar kenn ku nekk mu bind ab liste di ko tudd benn par benn ndax xam gu ma xam yéen yi nga xam ne moom li ñu doon feeñal ci Cheikh Mouhamadul Amin ci teel a namm guñ ko teel a namm ngir safoo guñ ko safoo woon tam teel a dem waaye teel a dem gi nag euh, du teel a dem ndax jëf rek am solo fanweeri weeram kenn ku nekk xam na ne def na fi loo xam ne ba kiroo àddunay tukki kenn dootu ko fàtte sëriñ bi mi ngi sant euh, Cheikh Bamba Dieye mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi Cheikh Ahmadou Bamba la ñu woon fii Ndar gouverneur am lu muy aaye ci réew mi jàpp Ahmadou Bamba yóbbu léegi Ndar seen maire ki ko yilif Ahmadou Bamba la tudd waaye bi mu tuddee Ahmadou Bamba it xam na liñ ko tuddee xam na itam li tax ñu tuddee ko ko jëf na jëf ju méngoo ak li mu yor sëriñ bi nee na mi ngi koy sant. di ko xamal ne li mu def ak ni mu jàpp bis bi euh, gis na ko te bu ko gisee sëriñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy kilifaam te kàddu yi mu yëkkati moo ko ko sant ci ndigalam la koy defee gis na ko te bu ko gisee sëriñ Abou Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadil gis na ko bu ko sëriñ Abou Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadil gisee Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides gis na ko te bu ko gisee sëriñ Touba gis na ko. Euh, sëriñ bi mu ngi beralu cant nag woy juram sëriñ Abdul Karim Mbàkke euh, makaarimal axlaax moom Cheikh Mouhamadul Fadil dafa mobiliser taalibeem yëpp ci ay jumtukaay ak xel yu rafet ak nangoo ànd nangoo liggéey nangoo sonn ngir sëñ Tuubaa jiitu su fi ay fan ngir liggéey bi lépp loo xam ne moom lañ fa war a def ñu taxaw mel na lu koy xëccoo xëccoo gi nag du xëccoog coow waaye xëccoog def ko nu mu rafete sëriñ baa ngi seeral àdduna sépp ne sëriñ Abdul Karim day sagal na ko taxawu na ko te nag way jurama am na loo xam ne mënoon na ko caa bañ a fekk waaye xam na ne lim doon def defu ko woon ngir moom defu ko woon ngir sëñ Moustapha waaye da ko doon def ngir magam Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke euh, sëriñ Fallou ñaŋ sëriñ bi mi ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaayam yu rafet yi nga xam ne taxaw na ko ci jëfam yu rafet yi nga xam ne jëf na ko yéeneem yi mu feeñal te xam nañ ne li mu feeñal lu tuuti la ci li nekk ci moom mi ngi ñaan sëriñ tubaa mu fay ko lu kowe njortam sëriñ bi nag nee na sëriñ Touba daa waxoon ne yoon wi day ñaar yi moom da ko fee fekk muy Mbàkke sëñ tubaa daa waxoon ne dama fee fekk ñaar mooy teel a mokkal alxuraan ak nangu kilifteef nee na nangu kilifteef googu nag day lu fi mag ñi bàyyi woon sëñ Tuubaa fekk ko fi suuxat ko moom nag ci rek la fa yéene dox dafa am kilifa muy sëriñ Moustapha mbakke moom Cheikh Mouhamadul Amin waaye bëgg sëriñ bi mi ngi ñaan sun borom dëppale ci ak lu ko sa njort kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi àndoon ak seen groupe Istikhama point org lii mooy li ñu leen jëlil woon ci ñaari rakkay ndar yi nga xamante ne nii moo amoon ci le 5 septembre 2012 ca bureau ba ca ndar muy bés bu am solo boo xamante ne nii defe naa leen li ngeen ci liñ ci jàngat lu rëy la ah, waxtaan nañ ci bu baax ci li nga xamante ne moo doon reportage bi kon seen groupe Istikhama mooy leen di gërëm di leen sant ci ànd gi ñu ànd ak yéen. lépp loo xamante ne nii rek jëlee woon nañu ko ca ndar yàlla na Serigne tubaab boole pay gi nga xamante ne nii moom lañ doon ut tax ñëpp daje fii ci ndar ak itam li ci gën a am solo jàngat yi nga xamante ne nii war nañ koo jàngat ci melokaanu murit melokaanu jullit ni mu war a mel. ci wéetal yàlla ak sax ci jaamu yàlla ak kennal baatub rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, kon ci commentaire bi ak montage yi seen xarit Moustapha Ndiaye ci caméra bi. Abdou Baaxe Dia euh, Ousmane Diouf ak Serigne Mbacke Fall kon ci euh, site internet bi euh, point org kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.